salaamaaleykum mbokk internet univers info TV on est mardi le 4 août 2020 ñu ngi précisément fii di euh, rond point Sandaga euh, fas yéen leen leen indil li nga xamante ni moom la euh, nguur gi. ak ñi nga xamante ni ministre beeg préfet bi procédé ci li nga xamante ni mooy démolition marché bi ah doxantu nañ nag seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi jox nañ ñu seen li nga xamante ni mooy seen xalaat ci situation actuelle bi bëri na si ñoo xamante ni amatuñ place amatuñ fu ñu xëyee amatuñ lu ñu liggéeye dénk nañ leen suñu micro nañ leen bàyyi rek ngeen taataan li nga xamante ni moom lañ fa jëlee. Sandaga laa xam li ma am lépp fi laa ko amee li ma xam lépp fi laa ko amee Sandaga dafa nekk loo xam ne nii weddi ñu dañuy defar nañ defar li tax liy jóg li ñuy defaru mooy marché bi mais bu ñu laal loo xam ne bokkul si marché bi mais Fafana lim ñu waxante woon ak ñun li ñu waxante nag président dafa ko dañ dem ba dernière heure ba dernier moment boole si loo xam ne bokku si. lan lañ si boole lu si bokkul. marché bi la ñu waxoon la ñuy defaral génneel nañ leen plan wan leen lépp at li des at li féete woon à droite mujj bi si lañ si lañ si lañ ko boole. mooy place yi ngay njëkk a jot boo duggee si entrée marché ba waaw mooy fi ñu taxaw nii loolu la léegi ñun génne woon nañ demoon nañ si président bu génneel ñu budget génneel ñu plan wala leen lépp ñu boole leen ak ñoom ñu war ko defar mais bu ñuy defar na ñëw boole ñu nekk si marché bi mu ne plan bi lii la at lii la lii at lii ni waxtaanoo ko mais préfet préfet at at kii ministre bi Fafana ñoom ñoo jël lu leen neex dafee dafee ne lu leen neex mais nañ xam ne ñoom liñ fi lor mënuñu ko parce que fii nii mooy loolu de parce que Sandaga bëri ñoo xam ne ñu ngi fiy xëy ko wàcc yor seen i njaboot nga xañ leen ko loolu ak boobu bis bu leen dalee dinañ ko gis te tôt ou tard dinañ ko gis parce que fii booy wàññi place yi bu nekkee 100 place 300 personnes a ngi si mbedd mi di si jëriñu 300 personnes ñoo ngi si mbedd mi di si jëriñu loolu ñooñu nga xañ nag dina këppwaat seen kaw parce que affaire da jaay doole lañ fi def. loolu rek la affaire a jaay doole parce que man mënu maa wax ak nit nga tënk li ngay tënk ngeen wax li ngeen di wax nga si boole leneen lu si bokkul. dama bëgg it saa bu liggéey ak ñun ak nañ xam ni ay responsable lañ ci dañuy def xëy na yoruñu diplôme yi ñu yor parce que ñoo yor diplôme yi waaye nañuy ñu nañuy def ci jëfanteeg ñun ci yi fi nit ak nit yi fi nit ak koo fi gis rek nit la dañu bëgg ñu bañ ñoo ja di force du ñu wan doole force yàlla rek ko am koo fi gis li mu yore day mujj jeex takk wala mu mel noo xam si du ko attanati nañu bàyyi xel loolu parce nit ñaa ngi toog am na ci ñoo xam ci fa tabaarakallaahu defar rek lañ bëgg nag ñu def benn waaye ni ñuy jëflanteeg ñun jëflanteeg nit parce que ay nit lañ ci suñu kër yi lañ jógee ci suñu kër yi la ñuy dellu am nañ fi ne lañ dëkk am nañ fi kër am fi njaboot am pi lépp nañ ñu yërëm ci li ñuy jëflanteeg ñun ci di ñu wan bàyyi di ñu wan doole doole baaxul. yow yow yow sa place fii la nekkoon. waaw man nag amu woon place kii la laa yoroon taabal laa fi yoroon waaye 74 ba léegi maa ngi fi. bi Thierno Birame di taxal table yi maa ngi taxaw mais nag aw ma sensu table waaye nag euh, aw ma sensu cantine table laa am nag ci laa def sama lépp nag ci laa am njaboot ci laa am defar sama kër ci laa lépp ci laa euh, yére laa ci doon jaay rek jaay naa dàll Sénégal yi jaay yére Sénégal yi loolu rek laay jaay waaw mosuma message neen li may liggéey lépp ci mbirum réew mi la dàll yi Sénégal yi liggéey laa doon jaay ak yére yi Sénégal yi liggéey laa doon jaay. léegi fi mu ne nii euh, dindi nañ place yi am na si ñoo xamante ni euh, euh, amuñu foo fu ñuy nekk fu ñuy continuer di liggéeyee. man ñooñu ban xalaat nga am. man mii ci laa bokk moo tax ma toog fii xaw ma lu may dafa gun nag maa ngi leen di déglu ba xam daañu ci jox su place yéen nit man mii ci laa bokk taabal laa yoroon mais jubleeguñ ci borom taabal yi moo tax ma ñëw toog fii ah di leen déglu ba xam nit ñuy dimbalee. mais toogaay bi ni euh, jamono ji fa lan ngay liggéey loo xamante ni moom ngay yóbbul sa njaboot. moom laa bëgg xalaat bu ma toogee ba xaw ma lu may def ma jël ci mbubb yi wër lu ma mën a jaay jaay ko yóbbul sama njaboot parce que mënuñoo toog di xoole ñoom la mënuñoo toog di xoole te it ay tout tànk lañ jàppaguñ ci dara waaye ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi sant yàlla nag. lan ngay dénk nguur gi. xanaa li ma leen ko dénk rek mooy lu ñuy defati nañ ko xool bu baax baax a baax a baax dégg la préfet ni mu def fii moom rafet na parce que moo ñëwal boppam recensel boppam noonu la kilifa di def kilifa day ñëw ba xamal boppam du taxaw ñu di ko wax loolu moom kontaan nañ ci li mu def yëpp ci ñoo ngi yaakaar it nag bind nañ ñun borom taabal yi ñoo ngi yaakaar nag danañ ñu jàppale waaw. bi tur ak sant bi naka la. Adama Fall. Ah, Adama Fall ndax da amoon ay kàddu yoo xamante ni moom nga ci war a yoo. waaw man dama amoon fi place mais fii li waral problème bi yëpp ñun dañoo demoon julli ji. préfet ñëw tëj fii suñuy cantine ñu woo ñu ne nu léegi kaay leen ñu ñëw mu ne léegi da ngeen di dem man maay garde bagage yi fi nekk yëpp suñu garde yi ñu aman mu génne leen ñu dem moom moo resa moo war a garde mu war eh, marché bi teg fi ay police am police yi tiim bagage yi bagage pompier nekk nii même pas 500 mètres sànd gi di lakk di lakk ba jeex tàkk ah? ay milliards lakk fi benn président jaaru fi benn ku bokk ci gouvernement bi taxawul sax ni ñu mas. loolu fii ren cinq ans ba léegi la waaw léegi deux léegi booba ba kenn jaaru fi ni ñu sax waaw léegi tey ñëwati nañu fee ñu ñuy yóbbu amul dara. gaa yi dañ fay toog ba jeexal dem dong am na ñu fa njëkk na nekk foofu dañoo demoon ba jeexal dem fe kenn du fa nekk fi ndool nii ñun dañuy perte ay njaboot la ñu yor yori doom di leen dundal te kenn ñi nekk fii nag ku ci nekk sa doom yaa ko daa fayal parce que bëgguñu ñoo yóbbu bëgguñu leen a yóbbu ci école yu bon yee ñu yàqu fa comme ñëpp loolu laa ci amoon lu ma yoxoo wa salaam mais jamono ji nga xamante ni euh, dindi nañ place yi yow sa place lan fa doon jaay ak euh, lan nga daal laa doon jaay dégg nga léegi fële ñu ma yóbbu ne wax dëgg yàlla amum fa yaakaar daal yaakaar moom am ma ko ah faaw ñu dem fa nag toog ku fa toogee di xëy di dépasse di fere di fere boo jeexalee dem sa yoon loolu rek moo fa nekk loolu kese moo fa ne parce que am nañu fa jëkk na dem dañ faa toog ba jeexal dem waaw parce que daanaka depuis booba ba léegi daanaka ñu ci bari ñii am nañuy problème ba dem loolu rek moo fi nekk. waaw loolu daal laa amal lu ma siy wax. ok. kon délai bi yéen kan leen jox ne kan leen leen joxoon délai ni dañ leen di yëkkati. délai avant tabax la woon lañ ñu joxoon la ñuy la ñuy yëkkati mais loolu respecté nañ ko ñu wax ñu ko. léegi ba après délai bi lañ si boole lu si bokkul après délai bi lañ boole kantin yi nii ngay gis nii ba fële ba si cong ba sandinière bi lañ si boole lu si bokkul motu sa cinq jours xaw ma une semaine lañ si soog a boole. parce que lépp préfet la. préfet la sa place fii la nekkoon man sam place fii la nekkoon sam place yi nii ma taxaw ne benn laa fi amoon. waaw léegi yow loo nar a def vu que euh, sa place bi nga xamante ni moom nga toogoon di ko liggéeye dindi nañ ko. waaw mais dindi nañ ko gars jox nañ ñu fële fa lañ dem. sand course sand course la ñuy jox fa lañ dem te tamit du ñëpp ñoo fa mën a dem fee bu fa person personnes duggee lor na 400 personnes yi nekk fii yoo xam ne mënuñu dugg ñoo xam ne amuñu woon place. 400 personnes laa la wax yoo xam ne ñoo ngi dund si biir marché Sandaga lu état bi xamul kon munu ma dimbali 100 personnes xañ 300 personnes wala 400 personnes ñoo ngi fi waaw mais ñoom xamuñu loolu ñoom dañ gis Sandaga dañuy gis ñoo xam dañuy taxaw fii nii ñoom ñëpp si marché bi la ñuy jëriñoo. yow place bi lan nga fi daan jaay. man électronique laa doon jaay. mais sa client yi nga xamante ne fii lañ la xamee woon buñ buñ la gis buñ fi ñëwee euh, te yoruñu woon sa numéro nan la ñuy def moom. instant bi mooy li ma la wax rek instant bi yàq nañ fi ay millions ay ay millions parce que ku nekk da lay ameel bor am ñoo xam ne amel nga leen bor tey comme mooy comme li nga wax rek am ñoo xam ne mënuñ tënnu la gis pour fay la mais ku si gëm yàlla mun na la war ba gis la jox la say client tamit nee nañ ñu defar pendant deux ans bu ñu defaree bu ñu fi joxee lii xayrun bu ñu fi joxul tamit xayrun loolu rek la. nan ngay denk sa mbokk commerçant yi. mbokk commerçant yi dañ góorgóorlu muñ rek am jom am fulaak fayda bu ñu xool si état comme nu ñu xoolul woon si état ñun état xamal la lañ seeka woon ak moom mu ñëw fayloo ñu ni yëkkati fay ko mosu ñu dem si état nañ ñu ko lebal ñu nangam wala sàngam wala nangam amuñu intérêt état état amul benn commerçant boo xam ne fii nii Sandaga moo ngi dem banque am di leb pour def commerce pour def si place am ñoom ñoo ñëw génneen seen PVA fay leen juuti ni génnee fay mosuyoo dégg marché Sandaga ñoo ngi xeex si ay juuti wala ñoo ngi tëj seen i place ñax bañ a fay juuti wala impôt loolu amul ñoom buñ ñoom bu ñu waxalee dëgg te yàlla rek tax seen i impôt nañ mës a ñëw Sandaga ne tay waa Sandaga suñu fay impôt wala juuti